Bonsoir à tous, bienvenue sur votre télévision nationale. Comme tous les soirs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons euh, dans Team Qatar. Team Qatar, c'est votre émission qui vous parle de tout ce qui se passe du côté de la Coupe du Monde au Qatar. Cette Coupe du Monde, donc, que nous regardons depuis à peu près près de trois semaines. Et je pense qu'on est presque à la fin parce qu'on a que. dalal émission dégtal lépp li nga xam ni moo xew foofulee ca coupe du monde bu 2022 bi xam ngeen ko nag li ci des ñaari match la bi gën a important bien sûr mooy final bi nga xam ni France ak Argentine ñoo ci war a jàkkaarloo beneen bi ci des nag mooy li nga xam ni rek mooy troisième place bi nga xam ne Maroc dina ko jongante ak Croatie nu ma koy defee nag guddi bu jot ak sama panel d'experts ak samay confrères salaam laam nuyu naa la dalal naa la Fatoumata maa ngi lay delloo nuyoo di kontaan di fi teew di nuyu Badara Sarr

mbir mi jeexna ba pare. ya nañu yalla yobbu ci jam ak salam amina baraka Sarr ñu lay nuyu di la dal yalla kan yàlla de ma envoyé message neena bonne chance. baraka ma ngi lay nuyu di la dal <laughs> ma ngi lay fay euh, Fatoumata ma ngi nuyu. kontaan nak ah comme euh, am na fii collègue euh, Abdou Salam. <laughs> nga xamni gën gëj nañu gisee. Ah. Baan ak Moustapha Sadio di nuyu aussi téléspectateurs yu RTS yëpp. di nekk Sénégal ak yu nekk bitim réew. ñu nekk bitim réew mhm. ñom souvent dañ ñuy seetaan di apprécier li nga xamni ñu koy def ñu leen ci remercier bu baax baax ci confiance bi ñu am ci sen télévision nationale baan ma lay nuyu di la dalal. di la fay bu baax euh, Fatoumata di nuyu coach Diallo xamna bonne séance bi moom bi la may wax match <laughs> moom la wax <laughs> di ko nuyu bu baax baax a baax di nuyu coach euh, Salam ak euh, coach Badara tamit ak sama confrère Moustapha Sadio di ko nuyu tam suñu mbokk téléspectateurs yi. Mm-hmm. di kontaan lool di fi téwaat tay ji ci ci émission Team Qatar waaw Sadio ma lay dalal. ma lay delloo nuyu delloo ziar Savané guddi bu nekk plaisir la vraiment di feggoog au plateau bi di ko partagé ak Aziz Ban. di ko partagé ak sunu coach titulaire <laughs> Salam Lam. ak sunu coach euh, Badara Sarr mi remplacé tey coach Mamadou Diallo di nuyu également sunuy téléspectateurs ñi ñuy suivre fii Sénégal ak bitim réew. waaw mi ngi noonu xam ngeen nag euh, fu mu nekk nii euh, li dess ci compétition bi bëriwul mais nag dañoo jóge ci match boo xam ni dafa jàkkaarloo doon ñi nga xamante ne ñooy français yi ak marocain yi loolu nag li ci tukkee mooy défaite boo xam ni marocain yi dañ ko daal di am ci deux buts euh, ci dara loolu nag euh, Ibrahima Mbub mi nga xam ni saa su ne mu tàmmal ñu xoolee match bi neneen nuñ ko xooleewul woon defal nañu coulisses yi dañuy seetaan te dellu si supporteru yi bëri woon nañ lool ci jongante bi doon dox diggante Maroc ak France bi joueuru Maroc yi yegsee di def seen échauffement ñu tàccu leen bu baax supporteru France yi ñoom doo leen sax dégg bi nga xamee ni mbappe ak yeneen joueurs yi dugg si nañ ci terrain bi. ci biir jogante bi nag France dafa teel a dugal wante supporteru Maroc yi gëmoon nañ ni égalisation dina am occasion bu ñëw rek gën leen a jox yaakaar. loolu tax ñu gën a dooleel seen équipe di supporter di yuuxu di tàccu supporters yi kontaan tamit ci fula bi marocain yi footballé firnde bi mooy bi Amrabat dàqee Kylian Mbappé dab ko boole ci nangu bal bi lu jongante bi di gën a dem nag ñenn ñi tàmbalee mer am stress ñeneen ñi xam ni defet bi mi ngi xeeñ ñu mën a ñaan di ko def ngir Maroc dugal wante ñaareelu bitu France bi moo ñëw soppi lépp suspense bi jeex na équipe bu Maroc bi ñàkk na jogante bi supporters yi am lu leen metti waaye terewul ñu sargal seen équipe ñëpp a jóg tàccu joueurs yi jaajëfal leen ginnaaw taxawaay bi ñu am ci coupe du monde bi li leen dese rek mooy jéem a jël ñetteelu place bi ci gaaw bi ñu dëgmal. voilà mu mel ni euh, li nga xamante ne mooy coulisses yi ñu ngi ko doon dund ak Ibrahima Mboup moom sax mi ngi taxaw foofu lay ca Doha di xaar nag ñu jokkoo ak moom ñu lay nuyu Ibrahima di la dalal ci team Qatar. waaw Fatoumata Savané maa ngi lay fay. di nuyu coach Badara Sarr coach salaam Lam Moustapha Sadio Abdoul Aziz Ban ak téléspectateurs yi ñi nga xam ni ñoo tax ñuy daw ñoo tax ñuy dugg fépp ci Qatar pour mën leen a digtal xibaar yi ajo ci coupe du monde bi. waaw am na solo bu baax yéen a ngi koy def ni mu gënee mu mel ni nag tey am na ambiance foofu lee nga nekk xam naa ni yaa ngi ci mbedd mi euh, xamuñu nag exactement fan mais fan nga nekk nii exactement. waaw maa ngi sukk wakif Soukou Wakif euh, fii la supporter yëpp di daje ah, ci coupe du monde bi daanaka guddi gi yëpp saa boo fi ñëwee heure boo fi mën mënti ñëw di nga fekk supporter yi ñuy jaabante di dox di dem di ñëw ñii di def ambiance sama ginnaaw nii ay palestiniens ñoom ñoo fay def ambiance euh, ñoom tamit bëri nañ fii ci coupe du monde bi ñëw supporter si wala mu nek ño xamni ci dëkk bi lañu nek fi ci euh, Qatar mo am ay restaurant yo xamni dañ fi nek supporters yi dañuy ñëw def sen commande tok à table euh, ñi di nan yu sedd yi ñii di lek reer di waxtaan euh, lool dal moom mo am fi ci Sukuwaki fii daal supporters yëpp di dajé toutes les nationalités bi coupe du monde bi tàmbalee ba tay wa tay nak boobu duñu dugg carrément ci ci match yi mais dina la laaj tay bi mu déssé juste ñaari match pour coupe du monde bi tëj organisation bi defe naa Qatar bokk na ci les plus belles organisations de coupe du monde année 2022 bi foofule waaw Qatar moom ni nga ko waxee rek euh, coupe du monde bu neex a neex la déjà stade ñu tabax rek ay stade yoo xam ne stade ultra moderne stade de rafet rafet affluence tamit Amna, supporters yi jóge nañ fu nekk ci àdduna bi ñëw téwé li nga xamé ni mom moy coupe du monde bi spectacle bi tamit amna gis nañ match yi ni mu ni mu nexé euh, dans l'ensemble dal Qatar euh, mën nañ wax ni coupe du monde bu baax le organi la ni euh, bëri na coow yu amone avant tournoi bi di di commencer yenn réew yi sax doon wax dañuy boycotté yenn réew yi di am lu ñu ragal ne Qatar bu fa supporters yi démé du ñu passer de bons moments. wante lu bëri ñu luñ doon wax loolu ñun gisuñu ko lu bëri luñ doon wax amul ci ci coupe du monde bi nit ñi ñi ngi sol lu leen neex quel que soit pays bu ñuy jógee doo gis ku la dab ci mbedd bi nee na lu tax nga sol lii nit ñi ñi ngi fréquenter lieux yi ñu bëgg fii am ay boîte de nuit am na ay ay restaurant am na ay espaces de vie yoo xam ni nii nit ñi ñi ngi koy fréquenter am na nag ay interdiction yoo xam tamit amna ta lolou tamit euh, bo demee ci réew mo am ay ay ponk yu mu tek ay loi yu mu tek dang koy dang koy nangu daa di daa di di koy respecté par exemple Qatar fay interdire lepp luy euh, vente de boissons alcoolisées autour des stades et à l'intérieur des des stades lolou dañ len koy dañ len koy nangul mais à part ça coupe du monde bi tout s'est très bien passé et li ngeen di gis fii rek yakarna ni preuve la ci ndaxte supporters yi ngeen di gis nit ñi ngeen di gis ñuy jàll sama ginnaaw duñu wa Qatar rek fu nek lañu jóge ci ci aduna bi. voilà mu melni mustapha Sadio itam amal na la ben laaj. waaw Ibrahima ma ngi lay nuyu di la ziar euh, di amone laaj ci juste par rapport ak euh, ban affluence la nu mën xaar ci euh, finale bi ni lo parce que argentin et wax nga ko dembo ils sont près de 15 000 en plus de supporters arabes saoudite ak yeneen dëkk arabes yi nga xam Messi bokk na si lan moo tax ñu rallier quasiment cause Argentine bi côté France la bëggoon xam parce que

ren jàpp naa ni ñoom ñoo jël palmu mobilisation bi c'est vrai que brésiliens yi tamit bëri woon nañ fi trop mais argentins yi dañoo am un plus l'autre jour bi ñu demee ci séance d'entraînement bu Argentine avant seen demi-finale bi maa ngi doon waxtaan ak ay confrères argentins quoi di leen laaj mais ñaata supporters ñoom ñoo ñëw fii ci ci dëkk bi ñu xamal ma ni ak crise économique bi am Argentine am na supporters yu bëri bëggoon nañoo ñëw mais mooy Nous avons am environ 1000 supporters nous ñoo joué Argentine nous supporter si euh, équipe mais nous avons ma ñi Europe muy France Italie Espagne ak Canada nous jógee États-Unis Nous sommes joué parce que nous avons ëpp ay moyens pour nous séance la coupe du monde parce que environ pour pour nous séance la coupe du monde le budget est nga am 3 ba jàpp 4 millions pour un supporter xam nga loolu c'est pas à la portée de de tout le monde donc ñoom li ñu ma wax mooy am na près de 15000 euh, argentins yoo xam ne jóge nañ bitim réew daal di ñëw supporter ci équipe bi. wante beneen donnée bi donnée bi am solo mooy Argentine dafa bëri ay supporter fii ci ci ci Qatar dëkk bi déjà dafa bëri ay supporters région du Golfe bi tamit dafa bëri ay supporters muy saoudien yi muy ñu jóge Bahreïn. am na ñu jóge ay Iran Irak ñoo ñëpp dañu ñëw supporter si Argentine parce que tamit dañu bëgg benn joueur boo xam ne nii joueur bu bu doy war la ci ci histoire football muy Lionel Messi. jàpp naa ni Messi joué na lu bëri ci mobilisation supporters yi ñu gis en tout cas fii ci Qatar moom supporters yi may gis ñu sol maillot Argentine. di sol Mayo Messi kenn mënu leena lim lim bu takko takko takko la da yakarna ni loolu dina nek force pour Argentine ci final bi ñu jëm déjà ci demi final bi rek bo xolé stade Lusail da ngay gis ni pratiquement trois quarts stade bi euh, ay argentin nga doon gis wala ay supporteru Argentine euh, nga doon euh, nga doon gis man gis na ci ño xamni ni États-Unis lañ joggé amna ñuma ci interroger ñu joggé tamit ay Palestine joggé fep ci aduna bi ñëw fekk si dernière coupe du monde Leo Messi yakarna ni lolo douzième homme bobu nonou dimanche dina am solo lol pour équipe argentine maintenant pour l'équipe de France nous avons près de 5000 5000 supporters lañ ñu wax demb sax nous ay vol France ñëw ci Argentine mais d'après écho yi ñu am euh, neige côté France conditions climatiques moo tax yenn vol yi mujj mujj ñu décoller pour ñëw fii ci Qatar su bu ko defee supporters yi mën a mën a teewe li nga xam ni moom mooy demi-finale bi amoon seen diggante ak ak réewu Maroc. waaw bu dee nag euh, Ibrahima da nga am laaj baan. waaw Ibrahima maa ci bi. ñuy wax France Argentine tey ñu finale tamit mu beneen beneen match ci biir match boobu muy diggante ñaari meilleurs buteurs yi ko war a xëccoo muy Messi ak équipe kii nga xam ne moo di Mbappé tey jii naka nga jàngate yow mi nekk foofu bi yow mi def demi-finale Argentine bi def demi-finale ki nga xam ni mooy tamit bu France bi naka nga une affiche boobu Argentine France. waaw affiche bu neex a lay parce que ñaari réew yu mag ci football ñoom ñooy daje euh, Argentine. gëj na gagné coupe du monde depuis Diego Maradona en 86 Argentine gagné wul euh, coupe du monde bi gagné woon na en 1978 à domicile mu avons euh, pour gagner un troisième titre mondial France gagné 98 à domicile gagné ko 2018 aussi en Russie pour l'équipe de France tay, objectif bi gagner deux coupes du monde d'affilée Té lolu boy coupe du monde ñaari réew rek def Italie moko def 1934 38 Brésil bu Pelé def ko en 1958 ak 1962 donc France di jema top ci tanku Italie ak Brésil gagné ñaari coupe du coupe du monde d'affilée que lu metté metté metté déjà France le fait que mu dem deux deux deux deux deux finales d'affilée ni lolu c'est un réel exploit exploit bu Maga Magla. mag la. leneen luñ ci mëna japp ci ñaari réew yi tamit ci coupe du monde bi ñu génn en 2018 en Russie France mo éliminé Argentine dan ko ñeenti bal ci ñett. Bolen leen match Bobu, Kylian Mbappé euh, euh, doublé ñu gis rush bi pour dem euh, dougali Ben ci ay ci final bi Argentine revanche équipe de de France Argentine bi day match bo bi day match Léo Messi mom dina dina parce que moy dernier matcham en en coupe du monde donc match la le xam ne Nous du yomb wante japp naa ni ñaari réew dinañ ñu produire du beau spectacle te booy xool sax ci statistiques yi sànq rek maa ko doon maa ko doon xoolaat 1930 euh, ak léegi ñaari réew yi nañ 12 fois Argentine gagné ko 6 fois mu am 3 matchs nuls équipe de France aussi gagné ko 3 fois on va vers un match intéressant àdduna toog di ko seetaan mu nekk tamit benn opposition Léo Messi Kylian Mbappé ñom ñaar ñu bok fu ñuy football muy Paris Saint-Germain té ñom ñaar ku ci def match bu baax boole ci duggal mën nga nek meilleur joueur coupe du monde bi ak li nga xamni tamit mom moy euh, meilleur buteur coupe du monde bi. waaw xeyna rek Ibrahima bala ñu lay baye nga wax ñu programme ëlëk bi inshallah waaw suba programme bi chargé na euh, parce que ñi ngi jëm ci troisième place entre Maroc ak Croatie troisième place bobu wara am. ginnaw suba bu juróom benn waxtu jotee fi ci Qatar mu wara nek ñetti waxtu fofu ci euh, Sénégal suba ci 11h ci heure Qatar dina am conférence de presse de veille de match bu Maroc. Walid Regragui di entraîneur bi mom mo fay nek dina and ak euh, Zakaria Abou Khlal euh, muy joueur ci équipe bu Maroc bi ñom ñaar ño wara jano ak taskatu xibaari bu ñenti waxtu jotee nak le Croatie di def conférence de de presse am. kii di coach bi Zlatko Dalic moo ci war a ànd ak Mateo Kovacic bu ñu demee ba ci ngoon gi nag bu juróom-benni waxtu jotee Croatie dina def euh, séance d'entraînement de veille de match am Maroc moom euh, bu juróom-ñaari waxtu tegalee fanweeri simili lay def euh, dernière séance d'entraînement waajal bu baax li nga xam ni moom mooy troisième place su samedi bi ci digganteem ak équipe bu bi.

faire une, très belle compète. Euh, voilà, on a vu que les, matchs euh, sont difficiles à gagner et, euh, maintenant bien se reposer et, dès demain focus dimanche parce que c'est une finale et euh, il faut la gagner. Didier Drogba a dit que t'es plus comme N'Golo Kanté que, que, Antoine Griezmann, euh, es d'accord <laughs> Ouais, on va dire ça, mais, euh, après voilà, c'est ce qu'a besoin l'équipe défensivement, offensivement et, j'ai les jambes pour, donc zéro problème. En fait, c'est ta troisième finale d'Euro ou de, Coupe du Monde où tu joues dans trois rôles différents. Comment tu fais pour, pour, pour te mettre dans tous ces rôles différents J'adore euh, regarder les, joueurs euh, à la télé, euh, j'adore en parler avec eux ceux qui sont défenseurs central, latéral, milieu, euh, peu importe, j'essaye d'être le joueur le, plus complet possible et, euh, au final euh, être toujours là pour ce qu'a besoin le coach ou l'équipe et ça me réussit bien donc je, suis, content pour moi et pour l'équipe. Tu l'as pris quand c'était comment l'ambiance dans le vestiaire Antoine on a envie de savoir un petit peu. très bien, bah, très heureux, vous allez voir la vidéo à Guigui qui va, qui sûrement sortir. mais, mais voilà, pas d'euphorie, il y a encore un match à, jouer et ça va être le, plus dur donc, donc voilà, va être focus à des dimanches, mais euh, je pense que ça va être une belle vidéo. Comment cette équipe d'Argentine euh, On a vu euh, tous les matchs de la compète, donc on a vu l'Argentine, et je pense que c'est un peu comme nous, un collectif fort avec un, joueur qui, qui ressort. on sait que Léo, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. Donc il euh, va falloir bien préparer ce match euh, et, regarder comment on peut leur faire mal, mais aussi comment les défendre et, euh, être prêt à 100% pour, pour dimanche. Qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu recherches immédiatement quand, le coach te dit que tu vas jouer relayeur Qu'est-ce que tu, Quelle recherche tu fais là pour gagner réaction Premier ballon, premier but, racontez-nous un peu. Bah, c'est une action qui se passe un peu du côté gauche avec Kylian et Marcus. Je les ai suivis un peu, on va dire, et j'ai bien senti le coup pour la mettre au fond. Il y a six mois, vous auriez rêvé de, marquer ce but-là et de qualifier les Bleus pour la finale Bien sûr, même il y a dix ans. Qu'est-ce <laughs> que vous avez dit le président dans le vestiaire Il était très fier de nous. Maintenant, il fallait qu'on aille le, plus loin possible, d'aller chercher cette coupe. Et il nous a félicité de ce match et et encore, euh, on est très, de nous. Ah, beaucoup de joie, beaucoup de joie. Ah, malheureusement, j'ai manqué la célébration parce que j'avais contrôle l'antidopage mais beaucoup, de joie. Ah, je pense que voilà, c'est là où on voulait depuis le, depuis le début. Maintenant, c'est fait. c'est un match difficile, etc. Mais maintenant, on va penser à, la finale directement. Il y a beaucoup d'euphorie quand même. Là, là on, vous, là, on vient de croiser euh, Randall Colomani c'était assez, assez tranquille en fait. On s'attendait à beaucoup plus de. Ouais, non, moi aussi, moi aussi, je suis moi aussi, je suis surpris. C'est vrai qu'on ne on sent pas encore cette euphorie, mais je pense que quand on va rentrer à l'hôtel avec tout le monde, etc., ça va être, euh, on va bien en profiter. Est-ce que tu as déjà regardé un match d'Argentine Qu'est-ce que tu as regardé de cette finale ah, Oui, oui, j'ai regardé plusieurs matchs. Ah, bah, c'est une équipe qui, qui, met beaucoup de cœur, une équipe qui, qui est très intense, euh, très compacte aussi. Ça va être un match, euh, je pense, équilibré, difficile aussi un peu à des, matchs qu'on a eu, que ce soit contre l'Angleterre ou le Maroc, où c'était des matchs euh, crochés, des fois un peu sur un fil, mais euh, voilà, je pense que ça va, être un bon match. Ouais, c'est un moment incroyable, une soirée extraordinaire. Et puis maintenant, on doit bien récupérer pour le match euh, qu'on attend le dimanche. est ce que vous avez ressenti avec ce, but En plus, c'était parfait d'ouvrir le score rapidement. Ouais, ben, pour moi, c'est une fierté non, de pouvoir mettre ce but en demi-finale du, du monde ma première Coupe du Monde et puis après aussi celui ce but c'est pour mon frère il est à la maison en train de garder ce match. Justement quel contact vous avez avec lui un peu il suit euh, avec assiduité cette Coupe du Monde Oui, euh, lui il est, il est très fier de moi, il est très, très fier de, cette équipe qu'on a fait et puis maintenant on doit, on doit bien travailler pour le match qu'il nous attend dimanche. Combien Et jouer contre Messi la prochaine fois ça va être comment euh, Normal hein <laughs> nous on va bien travailler, comme j'ai dit, on va bien travailler les 4 jours qu'on a pour, pour arriver le mieux possible euh, dimanche à la finale. Aujourd'hui, j'étais avec Youssouf. Euh, comme vous avez vu le voir, on a, des automatismes, on s'est compensé euh, à deux. Donc euh, on, a fait, on a fait un bon match tous les deux et on est content. On c'est un peu la folie en France. Est-ce que malgré la distance, vous ressentez l'élan populaire qui. Je disais en plus, c'est marrant, je disais à mes parents là à l'instant qu'on a encore du mal à, vraiment sentir ce qui, se passe parce qu'on est, vraiment loin. Mais voilà, je regarde les infos de temps en temps pour, ressentir un peu tout ça. Donc c'est cool, c'est cool. Jouer contre Messi en, en finale, c'est Messi ou pas Messi, au final, c'est juste une finale de, Coupe du Monde. Donc, euh, que ça soit Messi ou un autre, honnêtement, on veut juste gagner. C'est tout voilà mu mel ni euh, joueur français yi ñu déglu Kolo Muani moo njëkk a Jules Koundé euh, ki nga xam ne nag buteur français également Théo Hernandez ak euh, Aurélien as amené tamit ami na bi France du jouer contre Angleterre voilà mu doon ñoo xamante ne nag xam nañu ne ñi ngi dese benn match boo xam match bu important la mais salam, buñ doon natt li nga xamante ne français yi ñu

équipe bu ndaw amatul moo ñom sen match bi bu Maroc bi yaakaaroonu ci won ni dañ ci génne ni effectivement dañ ko jouer vraiment avec la peur au ventre de non respecter Maroc moo sax ñu jël bal bi jox ko mhm. di nga déglu parce que France bés bu nga xamni respecter wul won Maroc amna na nu mu waron jouer mhm. mais discipline tactique deug le gars yi xol observer ko parce que gis nañu Maroc mhm. ay équipe yu mag la d'accord donc ñoom euh, et puis demi-finale coupe du monde équipe bu ndaw mënu faa nekk. parce que bu fekkoon dañu wax huitième de finale quart de finale. Mm-hmm. ñu Maroc dafa fakastalu mm-hmm. mais équipe yi fa nekkoon yëpp. ku si nekk mën ngaa dóor sa morom. parce que jour yi ñoo ñooñu jour yi fa nekkoon yëpp di jouer. Mhm. ñoom ñooy tasewaat ci championnat yi au niveau. gis nañu diggante Kylian Mbappé ak Hakimi euh, respect bi mu ko jox euh, jox na ko mayoom conforté ko wan que ni euh, dëgg la joué nga tay ji xëy na on était beaucoup plus fort rek mais démérité wu loon je pense que loolu itam mooy def li nga xam ne mooy beauté wu football Badara Sarr n'est-ce pas. Oui, il le football, euh, comme animosité. Le mm. football qui euh, est l'adversité pendant 90 minutes, 120 minutes, 130 mm. minutes. Mm-hmm. mais ce Mais si paraît parlons, après, il faut être Par exemple, l'image le match euh, Argentine avec les Pays-Bas, c'est l'image de un peu a grande le football te euh, weesu nañu foofu. donc football euh, ay émotion la. Mm-hmm. Euh, passion la. Mm-hmm. mais su weesoo loolu rek dafa wara nek pour dajale ay nit. parce que tay comme li nga wax si entre. qui comme Mbappé ak Hakimi donc nek nañ ay xarit ñoo bok club yi ñuy mm-hmm. joué donc image la yoo xamante ni dañ ko wara garder pour la postérité. surtout pour xalé yi nga xamanteni ñu ngi ñëw si ginnaaw. donc loolu la ñuy xaar si si footballeur un sportif sax. Hmm. loolu la ñuy xaar si yow waxatuma ak nag un footballeur boo xamante ni.

Vous bu song métier béni nii xam nga le graal parce que même Ligue des champions vous avez un aura bu mag mais coupe du monde lu muy drainer ci ay nit ak aussi impact muy am ci téléspectateurs c'est plus de 200 pays yuy coupe du monde des milliards de personnes eu cette année donc yow mi un footballeur tu sais que c'est le le rendez-vous à ne pas manquer donc ni am chance aussi fekk fa seen i idole dañuy profité vraiment amul amul du gàcce quoi. Euh, mais def après le match parce que yaakaar naa coach yi am na lu ñu gën a bañ. mooy joueur boo xamante ne groupe yi lay gën a nuróol ci biir match bi nga respecté trop sa idole euh, defoo li ci war mais ku seetaan li Hakimi par exemple mel ni ak Mbappé. marquage bi métti woon na seen diggante presque <laughs> échangé ñu benn mot mhm. mais bu match bi jeexee ñu xam ne ki fii moom lenn amatul seen desatul seen diggante mën nañu aussi vraiment retrouver nekkaat les mêmes personnes qui au sein du Paris Saint-Germain. Euh, Enzo Fernandez, c'est un jeune joueur qui est Benfica. Ça, a que est un Messi, ça fait 15 ans, au 18 ans, il y a 7 ans. Il y a 4 ans, il y a 7 ans. Il y a une chance de partager avec moi ouais. sa dernière Coupe du Monde. Peut-être d'appeler, mm offrir euh, enfin un trophée qui manque de palmarès aussi. Je veux savoir que c'est un peu de c'est de vrais petits soldats hein, pour. <laughs> tour de Messi absolument Quand du ko laal ñoom De Paul ñoom De Paul ñoom Otamendi c'est presque euh, la première ligne pour euh, protéger Messi pour l'instant jig na leen lool waaye am nañu ñay dëgg-dëgg seen ah, kanam dimanche hein, mais également on a vu que balaa ñuy génn ci Maroc bi que Maroc dafa def ne euh, dafa déposer recours pour nga xamante ne arbitrage parce que marocain a nañu au courant dans le match am au moins deux faits de jeu yoo xam ni leen may ay penalty mais nak ki nga xamni moy arbitre mexicain bi mom jotou ko signaler c'est vrai di nga meuna def recours mais est-ce que recours bi dina ci amati sens puisque bon le résultat est déjà là té lolou du ko changé c'est-à-dire ñoom jugé nañu que ni am nañu penalty ba pare ci penalty bi sax defe boufal Bouffal fa jël carton jaune alors que alors que contraire bi la waroon alors que au fait c'est le joueur qui a glissé l'altankam tànkam mais nak xam nga aussi FIFA amna yeneen disposition yu mu jël mm-hmm. VAR il y a les arbitres donc de touche, plus l'arbitre central. Mhm. Et puis l'erreur aussi est humaine. Je pense que s'il n'a pas sifflé ça, je le pense. Je le pense en âme et conscience. C'est vraiment une erreur de, de, bonne foi. Normalement, expérience, on voit na Parce que tu tamit mis dee xool. Mhm. Argentine un match contre euh, Pays-Bas la donc il paré mhm mais si il s'est attardé si si arbitre effectivement Matteo Laos. Matteo Laos. éliminé il avait donné comme ma ñaata carte. déjà dañ ko sax moom. Euh, dañ ko pour arbitre alors que peut-être c'est un. arbitre expérimenté. un bon arbitre. mais tey après da ngay gis ni le penalty de Argentine am. contre qui euh, demi-finale contre Croatie. contre Croatie premier euh, penalty moi à mon avis. Golbi bi loolu la quoi. c'est-à-dire trajectoire la trajectoire am la nekk après bouger pour pour def dara. mais donc pression boobu man dama ni pression boobu motax tax. ñu siffle penalty bi fallait je pense que c'est pas trop tard déjà l'Iban, wax peut-être suñ ko visionné waatee parce que ñom suñ insisté won moi je pense que nañ ko xool bar woote waaw. te suñu xoolee VAR xam ni que Hernandez da il a il a simulé. le carton lui revenait et puis c'était un ah, penalty là et puis il a tendu la jambe. waaw man pour man nak dafa jël dafa jël tànk waay. coach Salam dafa rafet njort torop. dafa rafet njort ci arbitre bi torop. ah wa mais il faut ñu egg mais si arbitre parce que c'est le jeu ah. si arbitre bi je suis d'accord avec mom euh, monsieur Ramos mom munul sur euh, à chaud on xam ni une penalty am na. mais quand même pression publique ils ont les images ñun nous ko ils le revoient une dizaine de fois. le mm-hmm. temps bu Théo Hernandez def ci suuf. Mm-hmm. ñoom mun nañu oh, Ramos ne ko situation litigieuse. Mm-hmm. parce que erreur manifeste là, qui le carton jaune. souvent les grandes équipes. ne meurent jamais. Mhm. Et souvent, ils ont le bénéfice de leur popularité. Absolument. Parce que faiblesse, quelquefois, d'aller les un tax nit donc France si que parce bu flagrant ou lol, c'est ça parce que vous bu la la situation pour France. pour même quand dans la préparation des jours. il faut prendre euh, l'aspect aspect en compte. absolument ne jouer que au coup de sifflet de l'arbitre. allez-y jusqu'au bout li def na par contre. Mm-hmm. dans dans dans leur zone. Mm-hmm. le même truc. Mm-hmm. ce serait passé chez les Marocains. arbitre bi mënoon na siffler pénalty li ma bëgg a dolli mooy li coach Badara wax ak salaam mooy erreur bi ci marocain yi la ci Bouffal la sax ndaxte yow yaay tëdd tëdd ñu wax wax jëm koo jëm suuf doo jóg bu ko defee bu ko defee ñeneen ñi daw si ñëw harcelé arbitre bi ndax bu ñu harcelé woon arbitre bi dina dinañ VAR dina def le tout ba jéem ko woo mu ñëwaat xool image te lii bu xooloon image yi penalty lay tiré ndaxte Hernandez ci aksam la ne da doon duut farbal a rëcc exactement léegi muy talal tànkam dóoraale tànk bu faal mu daanu bu faal moom bu fa tëddoon sax del dina situation boobu dinañ dinañ ko xoolaat mais dafa jóg moom boole ci wax ak di kaas koy joxaale daan koy joxaale seen recours bi jàpp naa leen liñ ci mën mooy ñu xoolaat carton dañ koy dindi dañ koy dindi alerte te bi dina ci bi la parce que mhm. France aussi mhm. contre Tunisie mhm. euh, def la même chose Tunisie bu mu koy daan 1-0 terew ko gagné terew ko jël première place terew ko qualifié donc mais def recours quand même donc c'est <laughs> la même chose le Maroc def voilà on va en profiter juste pour Guiss, li nga xam ne tableau des buts et cartons yi nga xamante ne ko au cours des matchs ba mu des ñaari matchs bien sûr enregistré un qui qui 63 buts euh, à peu près 2,51 buts par match carton jaune yi 213 cartons jaunes je pense que c'est énorme le nombre de cartons jaunes par contre les cartons rouges bëriwul quatre cartons là. Euh, meilleur buteur il nag ku 5 buts là. Moi euh, Mbappé et Messi ñu ngi ko doon wax dinañ ko xëccoo itam ci li nga xam ni mooy final bi ñu war jouer ci dugg ci li nga peut-être moi affiche bi nga xam 3 troisième place bi Croatie moi jàkkaarloo ak Maroc ce sera donc le samedi partir de 15 h di ngeen ko bien sûr sur la RTS 1 et finale bi ce sera le dimanche à 15 h également entre l'Argentine et la France mu doon nag loo xam final rek mooy finale bu mag a mag bi ñu war am xëy na Badara finale euh, liñ Argentine France moi jour kan moy gëna taxaw wala kan moy ñëk ou wala bok euh, Messi ndax dañ koy mu équipe am wala Mbappé dina porter li nga espoir bi France tek ci entre jeunesse peut-être avec expérience. Wa défé vraiment à ce euh, moment là voilà wax euh, wax lu quoi. Mm-hmm. parce que ñaari équipe peut-être ku nekk am possibilité. Mm-hmm. Euh, peut-être euh, Argentine kii wax na ko léegi Sadio Argentine moom dañ defar benn équipe boo xamante ni Messi moo fa nekk comme général après ñëpp di liggéey pour moom parce que tey soo xoolee Argentine bi njëkk a commencé compétition bi contre Arabie Saoudite parce que li ñi si kaw ñu fa nekkoon ñëpp dañ leen a génne léegi indi ak xale yooyu par exemple Julian Alvarez indi Enzo Fernandez indi McAllister ñoo ñëpp dañuy liggéey pour Messi te yaakaar naa ni liggéey bu baax nag la ñuy def. parce que dañuy def pressing dañuy def contre pressing bal bi dinañu ànd ak Messi su Messi dem dinañ fekkee. donc loolu nekk na un apport boo xamante ni bu baax a baax si ñoom. de l'autre côté tey soo dee xool ba pare seen défense nag vraiment c'est une défense euh, très très hermétique. vraiment défense bu retrouver waat mm-hmm. gardien bu baax. Mm-hmm. donc dafa am solo euh, Rodrigo de Paul ak. Euh, peut si boolee même Leandro Paredes au milieu. donc euh, voilà dafa nekk benn double fii boo xamante ni presque euh, kenn mun leen a romb. Mhm. léegi nag côté France aussi. xam nga Griezmann li mu wax nii tey euh, waa ji defe naa ne posé na ko benn question bu am solo ne ko ñetti. non ñaari coupe du monde xam nga. waaw presque dafa joué ay rôle yu bëri quoi. dëgg la ñetti coupe du monde ñetti compétition voilà. ñu ngi fi woon waaw ba 2018 ak euh, voilà. donc dafa am solo quoi. parce que tey dafa atteindre benn maturité. benn maturité tey jii Griezmann si mhm. élément yi ëpp importance si équipe bu mhm. France bi la bokk. effectivement parce que équilibre bi nga xamante ni. Mhm. déséquilibre bi nga xamante ni Mbappé moko wara créer parce que mm. Mbappé c'est le joueur qui défend le moins. On a statistique génn nañ ko si mondial bi c'est le joueur qui défend le moins. dëgg la donc même Messi sax il défend plus plus que. plus que plus que Mbappé. Mm-hmm. donc pour déséquilibre boobu nag mm. koy compenser. Mm. Griezmann ak Rabiot. tay suma lay xol un peu sax si coupe du monde beulé ñu doon jël. kii moo fa nekkoon Matuidi voilà. mo moo nekkoon nii sax ah, Mbappé il était un peu à droite. mais quand même avons seen système de jeu moo xaw a système boo xamante dafa xaw déséquilibré ba nga xamante il faut ñu def ay double effort donc euh, tey ku mel man Griezmann mm-hmm. ak Giroud mm-hmm. parce que Giroud aussi c'est un élément incontournable dans l'effectif de France. après il na compléter mais je soo xoolee Mbappé par exemple match bu mu bu mujj bi contre mm-hmm. Maroc il n'a pas été flamboyant étincelant parce que tey jii ñoom defoon nañ disposé contre kii la même euh, contre euh, Angleterre sax ah même contre Angleterre il a été mis sur le peignoir Walker fa nekkoon nag voilà donc euh, <laughs> xam nga loolu day wane ni que man Griezmann wala Giroud mm. vraiment gis naa leen ñoo xamante ni tey jii presque ñoo ëpp lu ñu porté équipe mm. boobu voilà euh, merci beaucoup messieurs parce que on va devoir s'arrêter là notre euh, programme bi fay xaar ci ginnaaw euh, Papis Paye maa ngi lay def un coucou waaye yaa tax sama émission bi gàtt ok léegi nag dañuy remercier ki nga xam ne mooy Michel Diatta ak bien sûr équipe am yëpp derrière avec euh, les les réalisateurs en fait les réalisateurs euh, les caméramans les preneurs de son Malik Caro maa ngi lay sant di la gërëm di gërëm également ñëpp ñi nga xam ne dañuy jàpp ci émission bi gërëm sunu téléspectateurs yi nga xamante ne guddi bu jot dañuy toog di xaar team Qatar pour xam lu xew ci coupe du monde bi incha allah ëllëg dinañ fi teew indi leen yeneen actualité demaat foofu lee ca Doha euh, mbuub indil ñu li nga xam ne moo fa bees ñu dégtal leen ko euh, ñu leen di remercier ci confiance bi ngeen am ci ñun te di leen euh, ñaanal guddi jàmm.